ngeen jot suñu ko a xam kon ñu déglu Serigne Mahmadan moom sëriñ Abdoul Ahad mi wajur sëriñ Bass te bis bi tax rek mu jóge Touba ba fii ñu déglu Cheikh Mahmadan mbooloo mi maa ngi ñaan ñëpp dal yokkum jumaa ji Cheikh Abdoul Ahad bi Cheikh Abdoul Ahad wata route Cheikh kaamil Cheikh Abdoul kër mag moom Cheikh Abdou Lahata armée yu bees yi Cheikh Abdou Lahata corniche bi Cheikh Abdou Lahata forage bi Cheikh Abdou Lahata yokkum jumaa yi Cheikh Abdou Lahata sëriñ bi bismillah di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gii fi teew di Cheikh Abdou Lahad Mbacké mu Cheikh Mouhamadul Fadil di ko siyaare bu baax buñ ko tuddee rek tudd nañ ñi fi daje ñëpp di nuyu bokk yi fi teew yëpp te gis leen te suñu digganteek ñoom sorente ba mënuñoo dem saafonteeg ñoom ni mu waree ci sunu diggante di leen xamal nag ni bis bi dañ cee sant yàlla bu baax ndax yett yëf yu ci daje bu jëkk bi mooy ki ñuy defal bis bi digganteem ak njabootu sëñ Touba gépp waaye rawatina ci nekk digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad ngeen xam ci lu bari loo xam ni buñ koy wax tey yàlla def na ngeen xam ko mooy yàlla dafa def bi Cheikh Abdoul Ahad ganee àddina sëñ Touba wax li mu wax ci moom sëñ Baara moo taxaw ni kenn duma ko jëkk a doom tudde ko Cheikh Abdoul Ahad mosam mii portele bi ngeen gis mu ànd ko moom Louga lañu ko defee bis bi ñu koy def moo ko woo ba mu ñëw mu jël yére yi boppam jox ko jël kaalam jox ko jël ay dàllam jox ko jël mbaxanam jox ko ni ko ñëwal ñu ànd photo ngir cofeel gi ma am ci yow jaar ak moom it ci wàllu baatin fu bari Cheikh Abdou Lahad daan wax ni musu te jàkkaarloog moom te gisul bëñam danaa waxit ni fu mu ko mas a fekk bu ko nee asalaamaaleykum kooku du wàlli yu waa Kajooro mu ni ko ak Bawal ak fépp loolu la ko Cheikh Mouhamad Lamine Baara daan wax ñu ba am yeneen ci seen diggante yoo xam ni boo fi baxlil umari maa la yu bayin jataay bi du laaj ñu di ko wax kon loolu rek ñu gën a feddali kóllëre gi mooy suñu tànk yi tey bi ci toppaat ñu tuddee ko borom daarul muxti te yàlla def nun ñii tey ñu tuddee nu doomi boroom daarul muxti loolu rek jaroon na ñu dagg suñu yitte yépp teew fii tey te nu xamit boroom daarul muxti ci digganteem ak Serigne Touba. ak fa mu ko féete woon ak ni mu toll ci moom kon bis bi mënul dara lu dul rëy ba ca toppaat mooy Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ne moo koy def sunu doom la waaye bàyyi nañ ko xel ndax nit danga ko jur ba noppi naw ko loolu boo gisee nag muy am ci nit ay jikkoo koy waral jikko yu ñu gis ci moom moo tax ñu nawlonteeg moom bu wóor a wóor li ni doon doon waajuram bu amoon bis ca Tàmba sax danañ dagg suñu ite dikk teew fi ngir jënoonu ko te gis nañ ci moom jikko yu rafet te gis gisuñu ci moom itam daray ñàkk faydal te yaakaar naa ni ab cër ba ca gën a rëy mooy kenn sakkul sa bopp bu la yàlla sakkee boole la ci sëñ Touba am nga loo xam ne soo ko sàmmee moo gën àdduna ak li ci biiram ndax lépp lu ne di mébét rek sëñ bi fàggul na la ko ba noppi ba ca toppaat nag ma laal tuuti ci mbirum jàngoro ji ngeen wax fii léegi loolu nun sunu mbir yëpp ci sëñ Tuubaa lañ ko joyal te loolu mooy dëgg yu mel nii am na fi ba tey jëlale naa sëriñ Tuubaa njabooti sëriñ Tuubaa yi ci benn bis lañ ko daan sekk la fi nekkoon nag dara jugu fi mboolem li yàlla mayoon sëriñ Tuubaa àddina ak àllaaxira la te sëriñ Tuubaa dafa waxoon ni sama yoon yu noppi naa ci Seex laat Lahat woon ko ni bilaa afatin doo gis ci xasida yi sëriñ Tuubaa yi wala kadarin gannaawam taxoon mu di ko wax kon na nit ñi dalal seen xel te gëm-gëm yu wér ci suñu digganteek sëriñ Touba ndax lu mën a doon ci àddina bu sa pës bu sa pësteef dëggoo boo ko diisee sëriñ Touba am ca la nga ca bëgg jàngoro ju du dara nattu bu yàlla wàcce la ni mu ko wàccee la koy yóbboowaat ngelaw luy dem la rek bu fekkee sunu pësteef mate na ko ci sëriñ bi loolu rek ay am Touba ci jëmmam nag lépp lu ci mën a wax. ci luy gàkkal sa bopp rek nga koy def xarasaha llaahu tabaraka wa taala la sëñ Tuubaa wax min kulli makrohin wa maxoofin tal xarasaha llaahu tabaraka wa taala min kulli makrohin wa maxoofin nag lii ca la bokk kon bu ci nit xalaat ndax les ci war a def ña ngi koy def la ca des nag mooy ñaan yàlla ak sëriñ Tuubaa te lépp loo xam ne lii ki fi nekkal sëriñ Tuubaa wax na ko nun taalibe yépp danoo war a jàpp ne loolu ci sëriñ Tuubaa la bàyyi ko kon nag nanu wéral pastéef yi te dëggu te jàpp sëriñ Touba te bañ ko booleeg dara bu ñu ko defee lépp lu nu yóotu danañ ci teg suñu loxo ñu ngi ñaan nag ci barkeb Seexul Xadim ku teew ci jataay bii yàlla faj say aado ci saahir ak ci baatin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. si biir réew mi wala si bitim réew da ngeen di abonné ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne mën a xam li nga xam